potentiel bi nga xam mi ngi ñu acteurs locaux ils sont conscients du potentiel qu'ils ont mais également ils sont conscients de ce qu'ils peuvent faire avec euh, en mettant d'abord leurs forces ensemble donc c'est la synergie qui existe mais également ak appui institutionnel établi, bi loolu jàpp a faciliter liggéey bi ñu bëgg def ak li nga ndax bi présentation bi jàllee ba acteurs yi ñëw wax liñ ci jàpp mooy euh, ñëwuñu pour wan ñi fi ne nu ñuy liggéeyee fii moom ñi fi ne dañuy liggéey ñi fi ne également xam nañu yoon bi ñi fi ne xam nañ fu ñu bëgg dem mais li ci ëpp solo mooy ñi fi ne xam nañu li ñu manqué ak li ñu soxla réellement donc loolu lañu kenn ku ne wax mu nekk ci wàllu commercialisation si wàllu emballage si le secteur spécifique amna ku ne élevage donc kenn ku que ci secteur yi fi ne xam lan la bëgg léegi kon li des mooy ñu xool entre ñun ministère ak acteurs yi nan le ñu mën Té déjà amna ay piste solution une fois, fi wax yoo xam ne fekk na ministère bi nekk ci ba parce que nous da une maison de l'économie sociale solidaire Nous, avons un complexe régional de l'économie sociale et solidaire nous je défendre assemblée là ba parce que l'économie sociale solidaire c'est une politique de proximité donc mënuñu ko faire au niveau central yem Dakar foog ministère bi am ay service déconcentré fii te bu ci yàlla àndee bëgg nañu loolu balaa at mi di jeex ñu mën a démarrer ñu am fii point focal boo xam ne day nekk point focale ministère bi au-delà maintenant euh, fekk ñuy def complexe beeg yooyu en tout cas procédure yi ñu ngi ci fan yi dinañu instituer benn cadre institutionnel boo xam ne d'abord leen mécanismes de financement dinañ ko gën a rendre cohérent et puis ñu ñu xool naka lay gën a mën a bénéficier woo naka la ci acteurs yi gën a mën a euh, bénéficier woo